Jeuf uh, mbok yi ñu am mbégte nuñ koy défé sa su de dëkkal émission autour du micro tay nak uh, autour du micro uh, fas yéene dalal Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Job. mu nekk coordonnatrice adjointe plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg normalement le 8 mars lañ ko waroon dalal parce que moo nekkoon bés bi nga xamné ne moom lañ jagleel jigéen ñi mais situation réew mi xam ngeen fu mu

di mottali euh, kibi, mm. description bi mm. tek ci responsable politique à Hambourg. à waaw parce que dañuy lepp Dakar la nek Sénégal mm-hmm. té de Sénégal de yaatu ñu war ci gëna a cëral suñu région yi suñu département mm-hmm. parce que lu lool rek euh, la bëggoon yok di nuyu bu baax ce euh, ancien ministre aussi Ancien ministre ah. des technologies de ah. l'information et de la communication ancienne présidente du, collège de la RTP. Euh, vraiment contente de finir. que nous nuyu internautes yëpp. parce que mm. nous ngi suivre bu interagir euh, encore une fois jaajëfal ci invitation très bien d'ailleurs première question une analyse globale dernier événement yi nga a le Sénégal est-ce que bett capable xam dana wax sénégalais yi duñ réagir duñ réagir Macky di dérouler di def lu ko neex euh ñu gis nak bi pa benn fipp boo xam ne nañu bari bet na la wala bettu la man bettu ma lu dama mësa xamné xam euh, lu ëpp dina mësa tour tuuru mhm. te gisuma ben yoon Euh, euh, Macky Sall président Macky Sall gouvernement ak ñi mu àndal di wane ne ñi ngi bàyyi xel ci ni nit ñi sësee ak ni nit ñi sonnee ak ni nit ñi doylee doyalee ci euh, ni ñuy gouverner dëkk bi mm-hmm. gisuma ci benn signe au contraire arrogance bi di gën a feeñ yëfu maatay bi di gën a feeñ ba ci mujj ñi nekkoon ci dialogue national bi ñu fexe ba jël euh, euh, taqale leen jub dugal leen ci pouvoir bi loolu yëpp bu amee forcement euh, waxtu rek la woon ak ban événement la ak ban prétexte la wante bu événement bi yegsee ku ci nekk ak sa mer ku ci nekk ak la la naqadi mm-hmm. ku ci nekk ak kii loolu mënul woon ñàkk ñëpp wax nga ko ba tàyyi gis nañ Tunisie Le indi eh, Ben Ali la mm. lu ndaw la mais lu ndaw li dafa fekk ay ati ati at bi di mer bi di fess di gumba lu mm-hmm. rek la mi ngi jënd lu muy eh, lu muy ay ay arme lu muy lu muy population bi ànd ministre français Michel Alliot-Marie mhm. maa rappeler ni image yi ci suba si ñu toog euh, Tunis muy jënd muy réceptionner armes yi fekk na ca fa fond Tunisie am na fa benn événement boo xam ne ca guddi ga narul nekk présidence sam dafa naroon wàcc mhm. mais kooku prétexte rek la fekk na yëf bis ngi doon jur moo tax dama mës di wax ne dañuy continuer di sensibiliser di continuer di expliquer mhm. wante ala kuliyaalin dina am bés nit ñi jugal sen bopp mhm. voilà du man maa leen di woo jug du kiyaw ya leen di woo ñu jug mais buñu xamé xamee bu jug jotee dinañ jug té bobu jug mo baax est-ce que mode de gouvernance Macky Sall mo lalu ci arrogance ba taxna duñ mëna am perception du déglu bu baax le message que est peuple à chaque fois mi ngi envoyé. que lu veux mais man analyser parce que je ci bu bari dañu ci y parce que la ah. différence c'est que lan opposition de day wax parce que même pour moi, trois ans il ñuy wax eu oui dafa dugg déedéet loolu bu nekkee ministre de l'Intérieur, aménagement du territoire ba mu nekkee premier ministre ba mu nekkee assemblée nationale ba mu nekkee directeur de campagne yore xaalisu PDS 2007 di ko yóbbu gox-goxaan bu ne kooku amoon na ay relais ci gox-goxaan yi amoon na lu mu téye ci loolu léegi opposition dafa gaaw te wax deug yalla melul né opposition lu muy daj tey mhm. melul dé noonu dé ken jàppul ay nitam ken dégluwu ko mom ci bopam amoon na ay ay tolof tolof yu tar te bam ci ñaanee ñek dégg nañ ko mom mhm. nak mayul dara ken mayul dara ken lu tax moy doxalé noonu pour yow def na jikko la pour man jikko parce que ko gis bu yàggee sa jikko mooy feeñ mhm. mën nañ la mën nañ la tegal stratégie mën nañ la indil ay théorie mais yow nit dina la xelal lenn sax nga ne ko ah attention lii niruwuma moom lii duma ko def mhm. daal ci xaw a dellu gannaaw parce que booy xeex ak booy defar dangay waxaale yow yaay kan sa personnalité dafay feeñ ci ni ngay defee dont résultat yi mën na nekk la même chose ak Kenen, wante yow dang ci def sa touche personnelle ba nga xamné buy wax ak nit ñi sax du firi kanam gi la seule fois ma gis ko ci ay entretien mu détendu moy bu nek ak presse étrangère di nangu ko ko poser waat question di nangu ko ko a touti di nangu bobu dialogue bobu inter qui, ba pare même bu question ba ko ko xawee dérangé mu nangu ko mais buy wax ak sénégalais day le quart. Uh-huh. kanam gi rek taxaw kanam bo vraiment man contre ñen bam dess des demb que ah, gis <laughs> gis les muy lem demb mom gis nañ keneen demb mom ci waxuma sax contenu bi wante ci taxaway bi ak ci ak ci personnalité gis nañu keneen. Mm-hmm. waaw est-ce que soo xoolee au terme le nombre de morts il y en a au moins dix xamuñu un nombre exact bi nga gis déployer comme moyen après tu te dis tout ça pour ça. loolu je woon rek ne que ba léegi euh, côté boobu nag yóbbu ci vraiment suñu gouvernance gannaaw nañ ko wax parce que Sénégal tolluwuñu foo xam ne su xale yi dajaloo di yuuxu ay ay ay slogan nga leen di sànni ay bombe lacrymogène jëndee ko xaw ma ñaata laa dégg soixante dix mille xaw ma soixante mille. Mhm. jël ay nit dënd ay tenu est-ce que est-ce que gis nga armada mhm. bi policier yi di sol même avant événement yi. Mhm. bi ñu nee état d'urgence sanitaire bi ñu taxawee loolu yëpp est-ce que gis nga li ñu dépensé ci côté boobu. Répression, matérielle. Répression. Répression. Néanmoins, euh, amul am war équipement parce que ñom tamit buñuy dem dañuy lu né dañuy dajek lu né ci liggéey dañ am solo. que quand même événement bi grosso modo man gis que euh, plusieurs fois def nañu woné nañ am sang-froid quand même. am nañ luñ ci la. xaw ma lu mu doon wante am nañ lu ñu bàyyi wante boo gisee président Macky Sall lu mu attan a jënd ci matériel parce que Erdogan mooy mooy kii kiyam daal mooy référence am lu mu attan loolu voilà loolu vraiment xaj na ci leneen ñoo ñu mu jël ñëpp est-ce que gis nga force bi nekk ville bunkérisée pour ñu téye ville moo tax quartier yi amuñu xale yi di def lu leen neex gisuñu kenn ku leen téye parce que nous ñi ngi présidence primature building etc. Euh, pratiquement la moitié des effectifs nous lañ ko jageel jagle li ci des c'est que nous les 16 millions d'habitants ba nga l'idée, ne euh, lii day mais l'insécurité, c'est presque généralisé ci le c'est parce que force de sécurité vraiment vraiment pas vraiment de protéger population bi protéger Mourgi et ak président de la république mhm. et lolo motax bi xale yi samba boy yi dugg ci wax dugg ci mais xoolal def au champ dafa melni ne leen doon mhm. kenn nekku fa kenn nekku fa pour ne dafa presque dañ ko organiser ñu que Dakar def nañ ah bii Auchan bi Auchan bi Auchan xanaa ngeen war a ñëw quand même sécuriser tout tuuti déedéet kër diw maire préfet kii ñoom ñu war a yore suñu kaaraangeeg <laughs> suñu politique. Mm. <laughs> ñoom ñoom ñu ñoom ñu wër leen bàyyi dëkk bi. mais est-ce que ce n'est pas aussi un message parce que soo xoolee xale yi total lañ den lakk muy symbole signe français Auchan lañ den piller muy symbole parce que démb rek part mi ngi bind ne les Sénégalais se révoltent contre la recolonisation. Mais bien sûr. Mais papa, li au Sénégal euh, depuis bi Macky Sall mais mënul nous ne après Ablaye wad de ñëwaat di di di qui di ci def qui et puis dafa am yu symbolique yow mecs qui ci marche Charlie Xana bo qui 600 morts nga taxaw qui ci Charlie parce que dañu agressé presse doo tëj signal sa dëkk hmm. bu dee gëm-gëm la boo demee ci marché Charlie di di la boo demee ci Thomson hmm. taxaw ak employé yi parce que dañu gagné marché terre kontaan ñëw taxaw ak employé yi di di di di mais ban signal ngay wax sénégalais yi bu ñi nga xam ne suñu entreprise yi ñi ngi wut ay marché te amuñu marché xam nga signaux yooyu moo tax xaymawuma exactement ñaata lañu jox ci marché ci français yi mais daf daf ci fessel ne daf leen cëral lu ëpp lu sénégalais yi mën a muñ mu fekk ne que sénégalais yi ci seen bopp entreprise yaa ngi tëj entreprise yaa ngi am ay difficultés mhm. loolu yëpp mu nekk fi beneen affaire bi mooy mbirum fiscalité entreprise étrangère yu bari li ñuy fay ci impôt lu tuutee tuuti la yow boo fi amoon entreprise tey jii ne da ngay liggéey a war a fay un million dix millions la ñuy démarrer ak yow. yow ngay wut ay pexe bàyyi sa liggéey doo toppatoo carnet de commande ak liggéey ak ay kii de ngay dugg ak a génn ba ba mujj gi fay deux millions. donc ñoom facilité yi ñu am défiscalisation parce que dañuy ñëw ak kii mais présidence la ñuy dem régler man mën naa ko wax ci sama poste yi may nekk yi ma yi ma jot a jaar. da am dóor benn euh, daan benn benn entreprise parce que doxalul yoon mais décret la ñuy def présidence ne ne ne kii baal nañ ko loolu man dund naa ko ba pare nga jékki-jékki cour des comptes ñëw seet la ne daf lay ñëw daf lay daan ba ñu gis ñi soog a gis décret bi kenn publier wu ko loolu yëpp day am Sénégal boobu cëral ñu cëral ak ni mu affiché euh, beneen mburoog soow bi ak ak ak président France moo tax perception bi moo tax nit ñi am ne boobu daf leen cëral lu ëpp mais du ñoom rek la cëral lu ëpp de mm-hmm. ñeneen a ngi fi te boo gisee ne que suñu koom-koom bariwuñu ñoom ak ñeneen ñi ñu cëral lu bari loolu mais lan moo des pour ñun moo tax bu ñu waxee seen croissance nit ñi ne leen lekk ñun lekk ñu naan ñu liggéeyuñu ni taux seeni manifestation yi tamit wane non loolu. Mhm. parce que pillage Auchan yeeg yooyu. ça montre que les Sénégalais euh, ont faim. exactement ah oui Quoi moom mën nañ ko wax man amna ay ay ay ay ay image malheureusement dañ ko xamé mais panam la yoré parce que euh, attanul tiep bi panam la yoré dugal ci tiep mer la. dañuy wax xalé mais ñom tamit demone nañ wuti wuti tiep wuti dëwlin wuti macaroni wuti les denrées essentielles après la ñuy soog a jóg nag javel ak ak yeneen bi ñu paree ci Auchan la ñuy yegg ci yeneen yeneen enseigne yi mhm. bugguma leen fragiliser te pourtant ñoo nekkoon à côté Auchan rek lañ dugg alors que toujours à côté de Auchan am na fa bi yeneen i boutique mhm. kenn laalu leen mooy au début dañ ne Macky Sall ñii la àndal kon xaaral ñu and ñu and leneen leneen li ci am tamit wax dëgg man loolu dama ci bàyyi attention bu baax Sénégal soxla na marché yu moderne yu set yu sell kon booy dugg fu mel ne Auchan di fa di fa def sa dugg marché mooy rappeler ne quand même dafay liggéeyloo ay sénégalais. absolument produit yu bari Sénégal da koy jëlee. Hmm. dañ ci kontaan torop wante naka ngay jëlee dëkk bu mel ne Sénégal nga xam ne petit commerce mooy 99 vingt pour cent liggéey bi nga jël hypermarché dugal ko ci diggu dëkk bi may dellu siwaat Mbour mu rey petit commerce yépp yi nekk à côté yeneen dëkk yi ñu jógee ñoom sañuñu ko fa def Maroc gii ak de monde sañu ko fa def yow nga ñëw ñu war a ñëw ñu def attention ne la yow sa sa marché de distribution structuré wu ko loi yi moderniser ko bala ngay jël mais ñom xam nga lu ñu gis ñi ngi loué affaire bi mu indi ñi loué ma am ngay xam présidence quelqu'un mu hmm. jox la ki yoy lañ doon fekk ñi doon gis nañ que suñu législation distribution ce n'est pas à jour ñu def lépp jël place jël man bu ma sa kër fu ne ma nekk fa néeg bu ne ma nekk fa koñ bu ne ku ma mhm. mais même bu lay lu baax su donc li dafa bari dafa fés ba pare état bi deful liggéey bu waroon def ne leen di jaay lii di jaay leen koy jaay seen seen supermarché ni la wara daj comme ça sama petit employé yi nga xamné auto employé dem seen emplacement fi la wara nek warna sori warul jege torop kër gi loolu yépp état bi deful liggéey bobu bayi len ñu profité ci suñu législation bu na bu na sax bo xamné ne c'est pas à jour ñu nekk ni loolu yépp ci gouvernance la bok mhm. loolu yépp ci gouvernance la bokk mhm. tey bu ñuy analyser euh, révolte jeunes yi euh, ban message lan jox Macky Sall pour rek parce que réduire l'opposition à sa plus simple expression moo donne sa ambition déglootoo kilifa diine ak aada déglootoo ñi ci sa te d'accord ñu ak yow mhm. kon yow contre 16 millions d'habitants loolu mooy problème bi. Mhm. tey jii bu ñu même même Ousmane Sonko bu jugoon wax jeunes yi est-ce que jeunes yi nañ ko déglu vraiment ce sera compliqué. Mhm. déconfiture parce que dëkk dafay am hiérarchie armée day am général lieutenant xawma lan capitaine et cetera bu ñooñu waxee ñu weg leen ñu am pouvoir bu ñu kii dëkk bi mën a dox après troupe yi wante bu amee général kese ak troupe mais day compliqué. Mm-hmm. tey day compliqué ba nga xamné tay ji jeunesse bi non seulement de gis nañ ne que ñé kenn mo fi desoon kooku représenter son espoir. Mm-hmm. représenter son espoir c'est très fort symbole moment boo xam ne euh, nga pour dé pour baña tok paré nga pour euh, def n'importe quoi métier jigéen ñi. xam nga eh, prostitution masculine féminine ma dellu si ci mbuur lépp ñu koy gis pour indi dara ci kër gi lekk indi dara ci kër gi lekk parce que comme ni ma ko mère papa xaalis la war indi nit mën na comprendre ne amuloo xaalis mais man lek yaay endi, kendo indi kenn du toog te doo lekk oh. kon boog damay sas sama doom lu ma jàppalee ci lek gi donc yooyu yep mu nekk ci Sénégal di daw Mo am ay représentants yu nekk ci gox-goxaan yi wante politique rek lañ leen laaj tey jii man amna naa ci lu ma ci leer nañu boo demoon di wax waxi liggéey ak mm, président Macky Sall mais du la recevoir wala bu la recevoir daf lay déglu nii kenn du sax noté ken du ci jëlee dara comme point d'action da ngay génnaat xam ne jële woo fi dara mm-hmm. recevoir na la par courtoisie mais dara doo ko fi jële mais boo ñëwee pour politique alors là la déroulé le tapis rouge nañ teg plan d'action dinañ wax résultat yi nous xaar dinañ jël ay engagement donc loolu yëpp xale yi di mag. parce que démographie bi Sénégal mi ngi fi Lo taxaw diko organiser ci mbedd mi gis xalé yi et chaque fois dama naan mais qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire pour que xalé yi meuna jang mën c'est un vrai problème loolu yëpp nag buñ ko sentirul ci sa ay ci sa ay yi ngay yow opposition Boy bàkku ma yaa ngi jël kenn dugal ko sa mais bàkkoo résultat jeunesse mhm. donc jeunesse bi ñoom ñoom fu mu lu ak l'utilisation aussi de de termes yi seen discours va en guerre ay traité nous de terroristes. c'est une erreur ah là vraiment le ministre de l'intérieur euh, eh Mais le ministre aussi des affaires étrangères waaw waroon nañ jël ay man des fois dama ne sax dañu war a jël ay conseillers en communication parce que de gëm naa ne ku responsable dëgg ku réfléchi dëgg ku def stratégie Sénégal ku xool yépp am mais comme dañu sen bop soxlawuñu kenn ñoo gëna xam donc peut-être même ñi nekk ci sen biir xam mën leen wax duñ leen déglu wala bu ñu ñu ne ñun on connaît et puis ak wax pétri de certitude li may nettali toujours sam benn papa di wax ne naxaate ba mujj yow rek yaa gëm nax yi la mais loolu la parce que boo nee nit ki candidat des réseaux sociaux la boo nee nit ki diabolisé naa ko ay tour yu nek yo xam bëgguma ci jaaraat boo nee kii maa maa ko tax nek député en forest la boo nee kii xaw lan entre temps élection yi di dem sociologie bi di changer problème yi di changer nit ki di dem yow nga tok ba légui gëm rek la nga ñëkke wu ko fi ah Moustapha Niass def na 15 pour cent première fois ñu wax la ba sonn ñu wax la ba sonn ne la ne ñu wax ne ba sonn donc yow rek ya gëm nax bi léegi hmm. yow rek ya gëm ne que eh, yow tu maîtrises qui mook donc nga dérouler tes vieux plans là dans ce nouveau monde tes vieux plans là dans ce nouveau monde parce que tay dit quand même lu réseaux sociaux ñu bari amuñu ko dé wanté lu ci nekk wasaare hmm moo efficace d'ailleurs. lu ci nekk je suis d'accord que euh, de toujours levier yow xam nga ci dara. Mhm. ñu entre ñiy like ak ñi génn dem dem xex liñ ne dañ ko like. Mhm, waaw <laughs> c'est la nuit et le jour. mais du tere ñëppay dégg ñëppay dégg loolu yëpp nga am ko ci sa société au lieu nga def décryptage adapter sa politique évolution évoluer ak sa société nga nekk ba léegi di def sa ay sa ay ay plan ak sa ay ba pare dafa ne taluñu sax askan bi ak ay plan taluñu ak plan mhm. parce que wax wax ji ah, waxu Sonko ah, ci covid bi ci vaccin bi ci covid kenn déglu xam nga tey réception nañ deux mille et quelques vaccins kenn déglu kenn mais quand même détourner attention nit ñi la ci lu am solo wax dëgg yàlla donc noonu ñu doxalee ci ci société bi moo tax euh, la société sénégalaise est malade profondément malade. mais euh, tey profondément malade sur le cas Ousmane Sonko et sur l'affaire le dossier ban analyse nga ciy def. non man bu ma jël loolu dama ci dellu siwaat rek ci mbirum jigéen ñi. Mm-hmm. am na feneen fu ma ko waxee dama ne vraiment préparé wuñu suñu doom yi jigéen ñi pour ñu génn ci àddina boo xoolee jaari sow mm-hmm. Mm-hmm. kenn préparé wu ko pour mu génn parce que ba muy bind livre nekk meilleur élève du Sénégal xamul ne bés bu yeggee prépa dootul génn dootul lekk dootul naan day toog tëju pendant deux ans di liggéey xamu ko te xam nga loolu doo dëkk yow kese mm-hmm. da lekk sax dañ la koy indil sinon doo lekk man am naa ay doom yu ci jaar def nañ ci erreur rectifier ci ñi ci topp lekk sax boo ko ko indilul xam nu muy def dugg ci waañ bi jël powu pot chocolat lekk dem toogaat jàng nga dugg ci néeg bi fekk mu def post soo changé wul dara bi du ko changé gisu ko soo ci waxul dina toog deux trois jours boo xee mu ne la moment man aw ma jot loolu moo ko doon xaar fekk yaa ngi bind livre journaliste yi vraiment nga nekk machallah c'est du du miel cette petite là c'est du miel xam préparé ñu teew ñëw ci Adji Sarr say parents nekku fi sa yaay lu am solo est-ce que am na tantaak am na très rapidement très jeune ñu parce que ku 20 20 ans qui nan jaar na pas de vie, qui jaar na de mais ça fait combien d'années mu nek ci deuk bi di Tu mhm. te quand même 20 ans tu es encore un peu jeune quoi un peu mineur un peu mineur ci euh, ci ci yu bari negam sax da ngay am doom am ans continuer di ci wax ak lu ko asama la ko am 20 ans di jigen dans une telle société de consommation mhm. de consommation mu melne ne yomb fek lo def am na prix donc mu war a débrouiller ci société bi ba yegg si dajeeg ñu ko instrumentaliser wala ñu ko dugal wala semble t mënuma ci wax ba yegg mais ci ni ma ko déggee mais kooku tamit elle est victime elle est victime te naka ngay xamee ne que elle mooy li ko dal te mu metti ku mu daloon sa kër yaay ngay nekk mais ba hôpital euh, Adji Sarr bàjjanam bu bees bi kañ la am na bàjjan bu bees de. Mm-hmm. fa mu nekk. waaw <laughs> koo xam ne du séeréer. <laughs> koo xam ne dëkkul Fatick. Mm. koo xam ne xamu ko woon avant mooy bàjjanam bu bees loolu réer ci 20 ans mënu ko wees. Mm-hmm. réer mënu ko wees parce que ku amoon problème ba jaaxle ba lii da ngay daw nëbbatu ji sa kër sa peggu yaay bu fa nekkul sa bàjjan luñ la mere mere mere mere mere nañ xam ne yow sa bakkan bi mën na ci rot. lu ne mën na la daal ñu encadré ñu la wante nga am benn bàjjanu boo xam ne kenn xamul fu mu jóge bokkul ci sa milieu naturel de vie bokk ak ñoom benn dara ñu plongé la foofu boobu Adji Sarr bu génnee ban nit la ban nit la man côté boobu laa ci gën a wax ne que war nañu préparer suñu doom yi à affronter la vie yëf bi du mën togg rek hmm. yef bi du mokk pooj jonge tatati tatata et cetera non selfie kii nii am cheveux am xawma la non la vraie vie da ngay ñaq da ngay toog liggéey lu yàgg boo nekkee ci école bi da ngay toog jàng lu yàgg soog di def devoir am des connaissances solides boo génnee am na lu lay xaar ci entreprise yi am na noo war a mel am na noo war a toog léeg-léeg ma gis benn xale bu am bac plus 4 bac plus 5 génn ne dafay dem wuti liggéey mais day mel ne kuy dem ci bëgguma leen def publicité mais Dakar na dort pas mm-hmm. je dis mais yow yow nga ne banque nga ngay finance ngay nekk mais regarde comment tu es habillé regarde ni nga maquillé. tu as les soirées dansante. ah quand même mais suñu doom yi nañ leen wax ne que àddina bi boo leen génnee seen kër. Mm-hmm. am na nu muy doxee préparer leen pour que ñu mën a ñu mën a xam bien armé pour affronter la vie te fofu Sénégal dafa sooxe ay jongeek yoy rek lañ lay jangal ak yu démé non daal. mais on n'a pas entendu les associations féminines ci Kaawu Adissar pourquoi. bon man ci sama analyse ndax. dañu parce que c'est pas seulement Adji mais Khady aussi. Khadi qui a eu un bébé de 800 grammes, nous mal malmené de certaine manière. Exact. Té ni ngi jël Adji Sarr surprotéger ko, denc ko. comme ça. Exactement. Man, man dama def c'est la femme de l'année la la Khadi C'est la femme de l'année. Parce que résistance bu def. Oui. Quand même. Pour moi c'est la femme de l'année. Ce n'est pas évident nga nek ci sa salon di di di sa jeuker vous vivez simplement bobu machine yeb ci sa kaw nga résister waccio ben yoon sa yoon ah cette petite là cette femme là. Mm-hmm. ñu def ni sa dom nga sa dom résister ñun comme niñ ko waxé ñaari gori taxaw di la xaar ngay ngay dem ak sax ba ci bi di sa c'est une femme extrêmement courageuse. Mm-hmm extrêmement courageuse Qui a fait bi ci ñu une cause très importante très sérieuse Nous avons nous dans un combat politique Nous avons les vraies femmes violées mm-hmm. donc c'était un problème d'une part nous avons fait ñu wax mais bu ne nous bi daf ko fabriquer yow mi ñëw wax ci loolu après nu muy demee donc c'était très c'est très compliqué ci cas bi c'est une cause suffisamment sérieuse pour que du ñu nangu ñuy jël et le corps de la femme ah et les causes féminines du ko dugal ci euh, loo xam ne ay ça n'a rien à voir pour xeex nit donc day daal di metti ci association man ci ñi ma ci jot a waxtaanal daal mm-hmm. waaw tu euh, euh, loolu euh, bëggoon naa tamit pour une affaire qui doit être normalement strictement privée entre deux personnes. mais mënul am tey jii nga l'état au cœur du dossier. mais depuis le début bu ñu la waxee ne dañ ko doon yóbbu di ko indi di bi ak ça n'a jamais été une affaire privée bu ñu kenn que mhm. ça n'a jamais été une affaire privée dañ ko doon yóbbu muy génn 23 heures sous couvre-feu oto di ko yóbbu ñoo ñan lañ. Hmm. est-ce que man mën naa jóg nii aw ma benn emploi bu ko justifier am lu ma lu may circuler comme ça non asamalaak xale boo xam ne mi ngi maase mooy liggéey mooy liggéeyam ah di gagner à peu près quarante mille francs di taaba taaba couture fu mu jëlee loolu yépp ça n'a jamais été une affaire privée bu ñu kenn sonal. Hmm ensuite bi yëf bi yegsee porte plante bi na mu ak loolu ça n'a jamais été une affaire privée dañ ko taxaw mu bind plainte am dañ ko taxaw mu wax ba mu paree dañ ko nëbb kenn gisu ko kenn xamul fu mu pourtant dugg nga fu nekk nga fu nekk dugg fu ne pour génne aji dugg nga fu nekk ko kon ñi ko ku ñu mënul gis état rek la moo la nëbb état rek moo la mën a nëbb kooku amul benn wax bu ñu demee nag bay junj ci yëf yi ne amaana doon na jéem a gis président walla am na ñu ci doon dox am na ko wax na ko yóbbu ci président. voilà kooku musul nekk affaire privée bu ñu yegsee ni ñu traité dossier bi xam nga ñu ngi wax naan mën na nekk. ay contrôle judiciaire pendant deux ans trois ans mais en 15 jours nous dindi euh, l'immunité euh, parlementaire en 15 jours ceci face track euh, patam patamé en dépit de tout mais ce n'est jamais été une affaire privée Vous ne ça n'a jamais été une affaire privée l'autre affaire moi, je sais que ne dossier c'est que nous leen pour nous xaxar waaw ñooñu dossier bu ñu dugg rek c'est qu'il y a des intérêts derrière am na ñu leen yónni pour ñu taxaw ci plateau télévision yi ñu xaxar loolu tam war nañ ko bàyyi parce que man sama métier dama ko fonk donc soo nekkee avocat ñu war la jël comme avocat boo bëggee nekk avocat à la télé di taxaw di wax yu grotesque yu mel ne kii daf ko siif belle heure ñëwaat ci guddi gi siifaat ko ñaari yoon jox ko rendez-vous siif ko. te heure boobu yow nga ne avocat nga. te non te heure heure jour bi ñuy wax sax. Euh, euh, salon bi ubbiwul. waaw non euh, c'est-à-dire ce pays-là manque de sérieux quoi. Mm, mm. manque de sérieux am na ñoo xam ne waruñu taxaw di wax ci kanamu askan bi kenn waru leen bàyyi et dans un pays sérieux kenn du leen invité ñu leen di leen bàyyi ñuy prospérer sur des thèmes comme ça. -hmm parce que tout ça c'est vrai que télé ak yooyu amna ko théoriser ci benen deuk ne télé du pour nit ñi yeewu télé pour def ay émission yo xam day am audience après ñu passé ay publicité ñu fay comme fay ay salarié benen deuk amna ko ko wax carrément ne man nek ma fi pour ngeen moussa ah. dama fi nek pour def ay émission yo xam ñu bari dañ koy sétane comme ça après ma am ñuy ñëw di def ay annonce après ma am luma dundé kon bu ñu ñëwee par contre yow mi ñu invité yow da nga am devoir pour jàngal askan bi yow da nga am devoir pour représenter une certaine façon de la société donc yow am nga mission mhm. donc yow bu ñuy bu ñuy dem foofu war nañu seetaat bu baax pour que caricature la daal xam nu mu koy waxee sax ci wolof c'est-à-dire mën nga mën nga sax ñëw parce que fi nga bokk nga même un peu de mauvaise foi nga nga fara fara fara far ba yëf yi xaw a taq suuf mais wax loo xam ne waxu daanu saret la loolu warul am te ñooñu dañu dañ leen teg foo xam ne nee nañ ay notable lañ ci dëkk bi parce que bu amee yenn événement yi ñu ngi au premier plan mais ban valeur ngay jox xale yi nga bëgg ñu ñu yaru may rappeler ne saaga ak toj ak yàq ak tooñ du rek jël xeer ak def ci mbedd mi mais yow bu fekkee ne da nga war a jàng jàngoo ñuy sàcc te kenn du leen def dara man ma ñëw fexe ba sàcc benn affaire ñu ma ràpp ci ma deux ans trois ans gisuma kenn défendre ñu dem mu mais c'est de la violence. ni état bi di doxalee nit ñi dañ ressentir comme de la violence en col blanc ni koy waxee ci am sa lépp di def lu la neex te dara lu la ci fekk man nag ma sol sama sabadoor bu gàtt mhm. su ma waxee loo xam ne benn benn post Facebook sax ñu ne ma ràpp ci kaso bi trois mois jël si ma et ça aussi ça pose le problème de la justice sénégalaise c'est pas possible ça pose le problème de ah la justice sénégalaise ah oui kooku kañ moom moom moom moom ñëpp wax nañ leen quoi ànd leen affaire bi quand même am ngeen ci occasion ngeen wone beneen xar kanam def seen liggéey na mu waree weesuwul. parce que manifestant yi jàpp yëpp téye leen te entendre wuñ leen. notifié wul leen dara. lu tax ñu génne mais li gën a caricatural maanaam li gën a màndargaal ne lu leen neex la ñuy def mais Ousmane Sonko mi ngi këram. waaw ñi nga xam ne dañ ko doon jàppale ñëw fekk si ko ñooñu ñu jàppale. ba léegi ñu ngi ci biir kaso ba léegi ñu ngi ci biir kaso bi.

boo ko seetee ba seet moo ci gën a xam naka lay waxee ak fan la waree a yem mm-hmm. mais du tele dañ koy wut di ko seet affaire bi am rek mu taxaw ci benn tribune ñu ne léegi résistance rek mu ne waaw ñu ne ko nip jàpp di ko toroxal foofu nag ñu mm-hmm. ngi koy toroxal foofu te loolu yëpp affaire droit de l'homme yi dañ ci war a jukk loolu yëpp dañ ci war a jukk ñi ñu jàpp te teguñu ko fen ñi ñuy jàpp di leen torturer di leen def lu kenn xamul foofu yoo xam ne àndul ak yi Sénégal xaatim dañ leen ci war a topp c'est pas normal. c'est pas normal alors euh, déglu nga discours président démb. waaw. los jàkk <laughs> bon. sedd na de. ah sedd la dafa jot. parce que yow comme opposition dégo kilifa dal sa pour une fois mu wax te un temps méprisant presque Bo len da ba koy maye ah. Ah? dañuy wax mais ton yo xam <laughs> je dis mais qui est-ce que xam koy <laughs> est-ce que fatéwul? moy kan mais buma ñëwé ci contenu bi même. contenu bi contenu mais waxu fi dara lu ñu lu ñu j'app ndax fan lay muy jox ah? est-ce que day tej institution vor yoy di suñu budget est-ce que est-ce que da fay def est-ce que gouvernance est-ce que fay génn ci dossier yi mu teg le coude est-ce que daf ciy teggi coude euh, justice bi dox est-ce que est-ce que est-ce que lépp lu ñuy gis lépp lu ñuy jooy est-ce que yooyu yëpp da koy nar a def waxu fi dara lu ñu mën a téye je suis désolé pousse couvre-feu mais loolu mooy lan day manipuler pour mieux revenir dafa bëgg yëf bi sedd ñu démobiliser comme Sénégal lu ne rek jam jam jam jam jam jam jam jam ba kenn dootul dégg mu mel le problème moy jam jam ci la lepp xaj dañ ko wax wante suñu démocratie mom lañuy ñuy mhm. parce que jam jo xamné ñi dañu teud seen kër am lu lek am lu ñu naan même bu ñu deful dara ñu fay leen ak ñi amuñu mënuñu liggéey xamuñu fën lañ jëm kooku mënul nekk jam dañ waxante dëgg kon loolu jàmm jooju muy woote foog mu def ci contenu def ci loo xam ne nit ñi mën nañ ci jàpp mu joxe ay gage yu wóor ah ne xaalis trois cent milliards yooyu mbaa du comme mille milliards u Covid bi mbaa du lekkukaay la nar a nekkati encore ak ku ñëw taxaw ne la man aw ma benn compte bu ma leen di rendre man ku ma woodu ma ñëw. waaw goro lu ne dégg nañ ko fi. goro goro lu ne dégg nañ ko fi. da nga def comment en deux mille vingt ak Sénégal nu mu yàggee nekk ci ay institutions internationale am ay université yu ëmb Afrique saw jant yëpp mhm. am ay cadre yu liggéey amul benn corps de métier yoo xam ne am na ñu fa am expertise yu pointu naka la ñi ñi ñuy gouverner mën a mel ni ñu mel mu ñuy interroger nag ñi toog seen kër naan bokkatuñu naan waxatuñu dañ di subir loolu rek mooy choix bi ci côté boobu ma ci gën a woo jigéen ñi jigéen ñi nañu bàyyi di xaar ku leen indil ak ku leen jiite. walla ñu nekk ci folklore bi. moom laa wax dama ne sax 8 mai bi malgré nous dina nekk 8 mai boo xam ne xanaa dinañ réfléchir bañ a folklore ma naan wii mai. 8 mars 8 dama ne jigéen ñi nañu jug bokk nañu jug jiite. Mhm. nañu jug taxaw. bañ a yóbbante ku leen di fajal seen soxla loolu amul boo nekkul conseil municipal taxaw di xaar sa leader indil la financement mm-hmm. mu dem beneen leader indil la financement mu dem beneen leader mais c'est ça suffit jug leen bokk fa ñuy wax conseil municipal naka lañuy doxalee gox bi ku ci nekk lan nga bëgg mm-hmm. lan ngay defendre ak naka lañ koy doxalee su ko defee ñu ñu mën a jël sa ay ay sa sa ay bëgg-bëgg

bëggatuma dégg affaire politicien daf ñuy nax. mais nga jóg nga jóg engagé engagé wu. alors jugal. alors laaj bu mujj bi ma lay laaj moo di mbuur Mbour. maa nga ni doon candidat mbuur waaw kooku moom bu ci yàlla àndee bu ci ñi ma àndal àndee te suñu. ñu fekkee ko ak bu mag nangoo organiser dana ko nangu <laughs> local da koy nangu. da koy nangu kooku moom amatul benn mais Mbour ville la bu compliqué de. amul mais wax wax ma lu yomb ma dem fa est-ce que yow lii ngay liggéey fii yomb na. est li ngay daj yomb na wax ma lu yomb ma dem fa amul li am mooy. Mhm. gëm sa bopp ba pare liggéey nag wax dëgg yàlla. Mhm. liggéey bi mi ngi naan yow li ngay wut. xam nga mooy lan est ce que xam nga li lay xaar est ce que li ngay boo fa yegsee mën nga ko def est ce que yaa ngi préparer sa bopp pour mën ko def préparer sa bopp mooy lan mooy sa programme mooy sa nekkin mooy sa xam ñi nga nekkal mooy ñeme terrain bi wàññi oto yi mhm. dugg ci dëkk bi nek ak nit ñi loolu boo gis nga bu sénégalais ñoo fa nekk sénégalais yombuñu sénégalais am fu ñu ci yow confiance bu mettee ñu xam ne ci ñëpp la metti mm-hmm. bu ne c'est un minimum man nag mbuur dama ci gis tay gis ci suba ndax fiñ ci nekk tey jii am nañ ay atu yu bari ñu ngi ci napp gi ñu ngi ci tourisme bi ngi ci Dakar autoroute aéroport ñu ngi ci Carrefour foo fu bari fooy dem mbuur ngay jaar maam yaakaar ne loolu ay atu la yoo xam war nañ ci gën jël luñ ci defaree ba nga dañu bàyyi mbuur ba Malicounda wër ko mu nekk benn gis bi tuut est-ce que dem nga rond-point Saly hmm? est-ce que gis nga la fa nekk fan yi sax ñi ngi jéem a góorgóorlu garage entre dëkk kenn mënul dem kenn mënul dikk loolu yépp ñu koy muñ yépp xaalis lañu wut ñu jël terrain yépp du ki fi nekk rek de dañoo jaay ba nga xam ne tey ji boo am euh, euh, benn entreprise bu mag buy liggéey mbuur dangay dem wuti mbuur suuf sànjara luwe ji suuf feneen parce que yépp maire yi successivement maire yi jaay nañ ko hmm. nga ñëw ci diggu dëkk bi insalubrité saleté bu ñu xasee ba ne fii dañuy def tali daal fay def suuf su xonq daal di koy bàyyi noonu bu nawet bi nekkee mu ñëwee mu nekk potopoto bu noor ñëwee poussière bi di nit ñi di ko noyyi hmm. nga dugg ci marché bi mu xat suis un Covid je ne leen li marché bi suis hmm. am ñu suis man marchand ambulant yi mu vraiment ni organiser dama vraiment capital humain pour buñu buñu Je wul ma gis jigen ni transformation yi ñi microfinance est-ce que xam nga ñu bari tey jii seeni xaalis jël def seeni moddu économie endogène ci seen biir. Mm-hmm. di ci lebalante di ci am intérêt di ko puusaat ñu leen di wut jox tuuti financement ñiy daw di rembourser di liggéey di di dem fu sori bay mujj gi ñenn ñi di wàcce conteneur au ay 1000 francs lañ doon cotiser. Mm. boobu capital humain boobu euh, pas-pas am ci Sénégal am ci mbuur loolu yëpp buñ ko utiliser mu des nag infrastructure wax dëgg yàlla nag mairie amul moyen infrastructure wante maire am na quand même sañ-sañu utiliser yi acte trois de la décentralisation may pour gën a yokk dëkk bi am na ñeneen ñu ko def ci su ci sorewul sax ñoo bokk sax département ñu seet ci ñoom di roy ci lu baax mm. yooyu yëpp boo ci amee xalaat mën nga ñëw ne li ci des moom mooy man ak nit ñi ñu wóolu ñoo yore seen carte ñoo yore seen bulletin ñooy décider waaw bu weesoo loolu man dama dépasé local man je vois Mbour dans vingt ans li may wooyee loolu di ko wooyee Mbour deux mille deux mille quarante parce que xam naa ne yu bari mënuñu ko soppi léegi loi bi moyen yi ak yu baree bari ak i soo bëggee gis dëkk danga koy gis fu sori di tete ndànk-ndànk di ci woo borom dëkk bi ñu nekk ci dëkk bi ñu ànd ci parce que papale mënuñu jël soixante pour cent suñu budget du ko dugal Dakar bi qui fait trois pour cent du territoire du Sénégal loolu foog mu soppeeku mhm. mënuñu am berte am TER am lépp Dakaaru bu ñu yegsee ba fële euh, sali bu ñu yegsee ba Mbour am sare mbaam yu indil ndox nit ñi ci seen kër c'est pas possible ngay gis sax ay paradoxe yoo xam ne dama de keroog yorewu dama doon dawal mënuma filmer defe naa ne sax Lamborghini la bu jiit leeg benn sareetu mbaam buy indi ndox ma ne lii mooy paradoxe <laughs> bi <laughs> il était mu obligé di daw ndànk hmm. mais sareetu mbaam mi moo nekk ci kanam di cokki cokki ndànk <laughs> parce que mbaam moom moom mu ngoog moo loolu mu ngoog donc mbour dafa am potentiel mbour dafa am royukaay yu baax mbour dafa am ay ay ay nit ñoo xam ne yàgg nañ fa nekk mais malheureusement fi ñu toll tey mm-hmm. waroon nañ ko dépasser bu baax a baax a baax ndax am nañ ay cadre yàgg nañ am ay cadre mais malheureusement ñu bare bare bare bari weekend dañuy ñëw découragé wala sax ñu jóge fii dem feneen wala ñu bari dem nañ nag diaspora ñu bari dem nañ diaspora dëkku immigration la mais koo ci gis soo déggee mbuur rek xol bi tëb donc ñooñ ñëpp defe naa ne bu ñu bëggee dëkk bi baax am na quand cadre boo xam ne mën nañ ci am euh, euh, espoir ne que dinañu defar lu bari li ci des nag dëkk bi nag Sénégal nag nous sommes un pays nit ñi da leen di wax dëgg. Mm-hmm. nit ñi danga leen di wax dëgg. ndax am na fu mu mën a am am na lu mën a yem en tout cas daal jot na ñun ci suñu bopp ñu am suñu corniche am suñu port de pêche et pas seulement quai de pêche mhm. mu am salu mu set wecc ñu am suñu ay euh, des entrepôts frigorifiques et pas seulement des camions mhm. ñu am ay routes yoo xam ne dañuy parce que mën naa wax ne que euh, par exemple napp bi jëm Mbuur moo jëm ci biir Afrique xam nga loolu yëpp potentiel bu rëy a rëy la mhm. bon tourisme bi Covid bi am na lu bari lu mu ci yàq mais ba léegi rek ba léegi ñu ngi ñaan yàlla yëf yi wàññeeku ba yëf ba ba ñu dellu si waat en tout cas daal su may bu may wax waxi mbuur mun naa ci wax <laughs> waaw waaw ci wax ba suba parce que man dama def effet inverse dama fa juddu après ma teel fa jóge bi ma ba damay def ma damay dem mbuur ñu bari dañu dem ba am poste di wut kër Dakar di weekend Nous seeni militant rek ñu am lu jox ay groupement ay ñu mais presque campagne jot. ñëw campagne campagne. donc ça c'est un problème moi je def le le truc inverse dama ne que je ma le courage di jóge France samay employeur samay ki ñëpp né yow da nga dof yow possibilité yi nga am fi yow yow ki yow lii yow il y leen mu metti ba ñëw fi mu metti ba ma continuer tok boobu démarche ni ma gëmee ne que on arrête pas toujours dañ may laaj foo jóge toujours dañ may laaj foo jóge kon boog xaaral dem foofu boog. <laughs> mbuur <laughs> waaw gëstuwaat fa bu baax. def fa au moins bay ci sama waar ak ñeneen ñëpp ñu bay ci suñu waar ba mbuur mën a jóg. incha allah incha allah. Euh, yàlla na ko yàlla def parce que Mbour c'est une belle ville hein, parce que xam naa buur baax bu euh, un grand reportage sur affaire pêche à Bour, et que euh, mën nañu wax ne foofu tamit euh, buñ ci suqandikoo rek mën na njëkkatiwaat bu baax baax a baax kon maa ngi sant di la bu Fatou Ndiaye Blondin Diop nekkoon sunu gan tey autour du micro di émission